téléspectateurs yi am mbégte nag dellu seeg yéen ci seen ñaareelu xaaju émission bi di wareef ba tey ci télévision Futurs Médias di seetu askan wi ñu am mbégte nag dalal fii suñu invité duñ ko dalal sax àllaaji suñu invité est-ce que est-ce que <laughs> est-ce que moom ñu dalal sax ci télé bi. am na fi cër de. macha allah macha allah ba mat. kon présenté ko. waaw ndax euh, benn waaye dafa ñëw ni Cheikh Amadou Fadal Mbacke mu baax ñaari xalifa yi sëñ Touba. Hmm. mbàkke mbaa dooma fàtte mun ko jëf fi lu ñuy fàttaliku boo ko defee kenn du la fàtte dëgg la waaye libaas nag dafay jëf lu ñuy fàttaliku dëgg la dëgg la dëgg la présenté ko sax daanaka <laughs> kenn ci ñun <laughs> du dëgg la ndax kenn la ci ñun ba pare doon kër aram dëgg la kër aram jàppale kër aram jàppale ak ak ki ne soxnaam su baax si dëgg la dëgg la eh, muy ne TFM dëgg la TFM miin na ko. dëgg la waaye miin na TFM attaay. waaye moom indil naa naa. mooy suñu invité mooy suñu invité Libaas ja Libaas Dia Seydi Dia. Seydi Dia bisimilah nuyul askan wi. ñu ngi nuyu mbo mbo mbokku téléspectateur yëpp di nuyu Adja Degen nuyu Pa Ndiaye di leen siyaar baax di di leen sant si invitation bi ngeen ñu invité. di rafetlu thème bi ngeen nekk muy thème bu am solo bu mën a jariñ réew mi. kontaan nañu lool lay baas comme ni nga koy waxee rek mu ngi sëjee Abdou Karim kontaan nañu lool toog ak yow fa tubaakalla macha allah dañu nekk nag ci thème bu metti ndax nee naa xale su fekkente ne nekk dem na ba di xotti wër ma wéy juram di dóor di xas di saaga di ciipatu di def wuy juram bi nga xam ne moom moo ko sukk jur loolu dafay metti mhm. te ñu gis ne de plus en plus dama ni jeunes yi sax mhm. naam mhm. waaye yenn nit yi dañu tegatul wuy jur place def nañu wuy jur moroom la ba nga xam ne lépp loo xamante ne ne que xotti xeetu xotti war ma la rek ak lépp loo xam ne xeetu mbugal la rek ak lépp loo xam ne xeetu fitna la rek ñu ngi koy def seeni wuy jur yi ndax suñu dundee ba nga xamante ne ne man nee naa li ci gën a simple li ma gën a ragal rek mooy mooy mooy sàllalu say wuy jur ciipatu say wuy jur tëj dem wan gannaaw ci ki nga xam ne moo la sëkk ju mën loola ba dara nekkagul dara nga xëy suba di ko def noonu nee naa ki nga xam ne koo ko def moo ko def ñu ngi wax ak moom thème bi dugg na ko mm. waaye yow tamit ngay góor uti ku koy def sa waajur mm-hmm. loolu su ma ko waxee jabar a tax ndax léeg-léeg nga gis góor tamit takk soxna soo xamante ne du teg ay waajuram fenn mm-hmm. di leen saaga di defanteeg ñoom di leen karaate di leen di xëppanteeg ñoom acide yooyu yëpp nag ay xeetu xotti war ma te xam nga waajur wax nañ ko ba tàyyi ah euh, doj la ñun ay nan lañu ba tax kenn mënu leen fay nag kenn mënu fee jox alal sa waajur wala tabaxal ko ba defee ne mën nga ko fay mm-hmm. waaye nag ko fenn lu dul saaga dóor xotti war ma karaate xas wax ko loo xamante ne day gàddaay waajur bi looloo xew yu bon yooyu nag ci lañ ne loolu loolu yéeme la maanaam tey dama naan euh, gore mm-hmm. gore si si sa ay waajur la war a njëkke mm-hmm. gore mm-hmm. ndaxte ki nga xam ne moom moo la moo la jur yar la ba nga nekk mag maanaam tey boo ko defulul dara rek respect bi mooy sele le minimum. mooy nga respecté ko. minimum bi nga xam ne tey waroon nga ko defal li mu la defal yëpp. nga fay ko parce que mënoo ko fay. mais maanaam respecté ko rek mooy li minimum li mu laaj lu gën a ndaw si li nga ko mën defal. Mm-hmm. mooy respecté ko. dëgg ndax ndax tey maanaam. respecter sa waajur mooy respecter sa bopp. dëgg la tey mënoo ñëw si sa biir kër. Mm. respecter soo sa waajur nga génn si biti. ñu ni kii yaru na. dëgg la loolu yaa ngi nax sa bopp. dëgg la te tey maanaam lu la yar mayul dara du la ko may. dëgg la lu la yar mayul dara du la ko may te suñu borom. Mm-hmm. moom euh, gëmul nelawul. Mm-hmm. des fois ngay yóotu dara di sonn di mm-hmm. jàng. say morom di la raw. Mhm. fekk sa kër ga la. Mhm. say waajur moom maanaam mooy li nga wax rek wuyu wuyu rek. Mhm. maanaam teggin. si say waajur. maanaam kooku da ko maanaam woo bi rek. ak bu ñu la woowee rek ni ngay wuyoo rek. maanaam loolu respecté la. dëgg la te dafa neex tey maanaam nga ku ñëw gis ni kii respecté na waajur. dëgg la. maanaam tey boo demee feneen ñu ni kii dafa yaru te say waajur waxu ko amul sens amul sens donc amul sens donc kon dañuy wax xale yi mhm. maanaam waajur moom kenn mënu ko fay mhm. muy baay di yaay mhm. mais nga respecté say waajur maanaam lu am solo la te foo génn sax ñu respecté la euh, ma ma dellu bëgg la laaj euh, libaas balaa may ñëw ci àllaaj bi fi nga duggee am na solo ndax waajur wi tamit waruñoo contribuer ci loolu nga xam ne xale bi war na ko mel ëllëg maanaam ci misaal baay bi naka la war a mel ci këram foofu laa doon junj allah ji léegi mm. ba nga xamante ne ne xale bi tamit mm. parce que am na ñenn ñoo xam ne dañuy taree la nga xamante ne dañu màgg rek gis loolu xew ci kër ga ndey ji tamit kazalika ndax ndey ji warul warul seet jikkoom na mu koy tàggatee na mu koy defaree na muy defaree boppam mm. di dugg us mën a euh, ruq mën a kanam ba doomam du gis ci moom lu mu koy xeebee ndax bëri na fi ay tontu yoo xam ne su jibee ak yenn waxee xale bi ci ndawam wala ci màggam gis na te yow jikko joo xamante ne daf lay xeeb te loolu musiba musiba la dëgg la ah. mooy comme li nga wax rek foofu tamit jur yi xam nga des fois am ñoo xam dañuy jaamu seen doom mm. maanaam tey a nga am doom mm. sañoo ko yar mm-hmm. sañoo wax ak moom mm-hmm. dëgg mm-hmm. sañoo maanaam boo waxee lu ñagas jàpp nga ni dalay mere mu nga kooku du la respecté dëgg la mais boo jàppee ni yow maanaam maa la jur man maa la jur donc man yaakaaruma dara si yow dëgg wax ko dëgg. Mm. maanaam yàqul maanaam si yar gi dara. Mm. bu la meree affaire am la. Mm. parce que yow yaa ko yaa ko jur. dëgg la kon xam nga kon donc si at si éducation bi si biir kër gi. tey ni nga mel tamit boo yaroo. da ngay mën a yar sa waa kër. dëgg la. des fois tamit góor góorgóorlu. ko si muy ku jigéen ki muy ku góor ki. maanaam am yar si sa bopp. ba pare sa doom ji nga jàpp ni kii tamit danga ko war a respecté mm. maanaam di waxtaan ak moom mm. di naxtaan ak moom mm. maanaam loo gis ni maanaam du du dëgg nga yedd ko dëgg bu bëggee tamit jàpp ni yow yow mii li nga koy yedd neexu ko nga wan ko ni man man maay sa waajur maay sa ma la amul neexal tey dama lay jox exemple nii ba léegi nii tey ñun sama yaay maanaam bu bu bu bu ma bu ma bu bu ma bu waxee ak man ma jàpp ni mer na rek damay dof dëgg parce que dama ko maanaam dama ko ragal. dëgg la dëgg la tey borom kër la tey du ma bu waxee duma ma si teg baal. muy sama loolu ñoom bu doo ko magee doo ko kilifa doo ko dara parce que ñooy wëyju. ñooy wëyju donc loolu dafa am solo. te tey dëkk bi maanaam tey coow li yëpp a ngi si am. Mm-hmm. mais tey waajur dafa fort. Mm-hmm. maanaam tey bu ñu respecté waajur yi. dëgg la lépp lu xale di bëgg di. ko am dëgg la dëgg respecté parce que respecté sa waajur mooy respecté environnement bi. dëgg la mooy respecté say morom. dëgg mooy respecté ni nga nekkee. dëgg la maanaam tey boo respecté say waajur rek. Mhm. da lay topp ba si sa si sa physionomie. ba foo mën ti dem. dëgg la respect ngay doxee. mbedd mi sax da nga koy respecté. ndax tey mën nga yoon dara war ko sànni. manaam mhm. téye ko defaat ko sa. parce que dañ la defar ci kër gi dañ la defar ci kër gi mooy base bi. dëgg la que base boobu demul rek mhm. du sotti dëgg la alaaji di gis nga sa doom fu mu génnee fu am solo. waaw xam nga kilifay doom daal. Mm. bàyyi waru koo xam. Mm. doom du doon kilifa ci doo bàyyi. dëgg la doon kilifa ci ndey. dëgg la alaaji. du doon kilifa nag ci. Mm. ñi ma maasanteel jamono. dëgg la bëggu gën ko. dëgg la alaaji. waaye bàyyi du xam dara jay doom. ndey wut xam dara jay doom. bor bu dul mat. loo ci dugal bul xeeb bul yéem. mooy diggante bàyyi ak ndey. dama ne ni ndey. mooy neuf mois. waaye bàyyaat labat moo doon yor. mën nañu sax yàq ci weneen yoon. waaye bul suivre yoon bu ñu nekk. suivre sa yoon ëllëg ngir mën a tëj. doom moo jiwu la yam. tiis yi ci suuf. di ñetti doom. daa yaakaar nawet bu nangu. pour ëllëg ay sàqam bari. moo yaakaari doom yam. bu doom tas yaakaar. nooy tasa yaakaar. commencé. sag yabeel ak sa xamadi mm. ak sag ñàkk war ma si biir kër gi di ko def ci ñaar ñi la séq mm. dootu ñoom ci yow yaakaar mm. boo dee ba ragal la nag def nga mose ba dootoo yër tekki yëru dénk dootu ñoom ci yaakaar yoru réew mi foo dem doo fa amul cër dëgg la te soo ma déggan ñaara ngi nii doom xale di ko def mag njëkk ña xam nga nu ñu daan labatee dañuy dajaloo ci pénc ma xale bu ndaw gàddu yanu paan mm. jël paanam teg sukk ñaari bëtuwam mm. papa libaas maa ngi leen di nuyu jële ko ba jële ko ci bismillah allo allo allo oui waaw soxna si ñu lay dégg waaw nañu baal wàññi tëleem soxna si baal ñu wàññi sa tële bu baax. waaw ah, am na luy raisonné écho waaye kon bisimilah yegg si. Mm. waaw c'est ça maa ngi rafetlu émission bi. ndeysaan jërëjëf. Uh-huh, te dama si dund daal lu bari bari bari. ndeysaan. Uh-huh, parce que moom sama yaay daf ñu yar ba nga xamante ne. ñu hmm. dañ daan génn ci kër gi yow di laajte est-ce que sama yaay moo ñu jur. Hmm. si yaa ngi dégg. Uh-huh. sama papa fa wàccaan. te soo dee tuuti ba ñëpp daw nañ. allo allo waa ñu ngi lay déglu. ba nga xamante ne yar ba tey war naa mën a am ci ci kër yi daal. Mm-hmm. soo gisee xale yi ma éducation bu ñu yor ci seen parents yi lay commencé ba pare. Mm-hmm. parce que man awma ay doom sama doom bu ji laa yor mais dama leen comme sama doom yaa ngi dégg ba léegi bu ñu di ñu toog di ma ne euh, kii dañuy toog di ma ne maman ñun bu i instant bi ñu nekkee xale dañoo foogoon ne daf ñoo bañ. Mm-hmm. wante bañu loo ñu. sëñ mm-hmm. yi dégg dama def si ñoom éducation bu mët a mët a mët a mët parce que yaay suñu jigéen village sax duñ leen di siis yow ci kër gi naan maman xool kii ni muy doxee xool kii ni muy waxee. Mm-hmm. affaire yooyu noonu. Mm-hmm. donc émission bi nag waru fee di jugee. ndeysaan te yëpp ci parents yi la ba pare. dëgg la dëgg la lu parents yow sa bopp soo yaroo donc sa doom wala ku topp ci yow dina. ndeysaan daal xam nga. ndeysaan aw ma doom xanaa li ma ëmb nii à part loolu mosuma am doom 10 ans ci ren. gis nga 119. 33 ans presque. macha allah. maam doom mais sama doom mujj yi maa leen di wax mais éducation plein la ñu am. ci ndeysaan macha allah macha allah ñu génn amuñu xarit ci mbedd bi. seen kaw balcon seen kaw terrasse. su ma buggee génnee ak ñoom. il faut ma ànd ak ñoom plage ànd ak ñoom def shopping wala dafa duggaat ci kër gi. amuñu xarit amuñu dara ba prisonnier la leen di wooyee. ndeysaan yaa ngi dégg mais nag bi yeboo ngay wax ne sax prisonnier mais éducation daa bëgg. ndeysaan parce que ay doomu jàmbur lañ. dafay yar da ngay dëgg la dox naa ko wax naa dëgg la dëgg la tey. dëgg la dëgg la dëgg la jërëjëf kontaan nañu kontaan nañu. kontaan nañu fóonal ma sama sët yooyu kontaan nañu bu baax. d'accord ñu waaw ziar naa leen. kuku <laughs> waaw xam nga. <laughs> dégg nga uh-huh. mhm. ñu ne ku jur ñu ni mm-hmm. ah, kii di naa ko téel sama doom. Mm-hmm. bu jëkk nag laa wax. da nga doon wax ci ni muy ñëwee sukkee. sukkuli papa libaas. Mhm. ni ngeen fanaane papa. ci ñu mu romb ca penc. ci ñu mu romb ci penc wala ci ci kër gi ñu ne ko jur ñu ne dëggeen su meer. Mhm. libaas ñu bëri na kii dinaa ko téyel sama doom. Mhm. ndax yar baag teggee nii dama wax sax mu démb ne la. di nga yaroo ci mbedd. di yaroo ci dégg. di nga yaroo ci gis. waaye di yaroo ci roy. muy lu baax. dëgg la jërëjëf ci ligne bi libaas. dëgg la aleykum salaam. na ngeen def. ñu ngi sant bu baax. na tuddee naa la ko. Ndiaye Lo Ndiaye moom ambulance la moom soo ko déglu da ngay yokk. <laughs> alaaji beneen affaire la. macha moom kay yàlla bu ko cat toog na fi yàgg. amiin yaa rabbal aalamiin amiin. sans ordonnance. amiin nee na sans ordonnance. bu ma gëstoo gis la rek. man moom nee naa allah thème yëpp a moom da cee raw. Mm-hmm. parce que nee naa man xale yi pour man xale su dëngee pour man ci waajuram la. parce que nee nañ man du ma nee góor moo yar mais jigéen moo yar. instant da ngay nekk ci kër góor jigéen gi ne la ah kii de seen papa dafa leen a réewal patati patata expliqué. seen papa dee xëy dem liggéey yow mi ko jigéen ki yow yaa war def tout pour doom yaru parce que nee naa lu sa ndey mele moom ngay mel ba ci kuy kuy sëy. sa jigéen am ngay mel sa jëkkër il faut sa doom def loolu. Mm-hmm. man je me ku ku nekk nit ku baax fekk nga am doom ju baax. parce que boo nekkee ci biir kër du xuloo si jëkkër su bàngoon guddeeg ba di ko tàcc sa doom di ko gis pour moom loolu moo am. pour mm-hmm. <laughs> moom c'est normal quoi c'est l'éducation. su gisee sa papa sax di ko wax yenn yi moom mu nopp tëj gémminam mm-hmm. danaan lii moo normal man de maa ngi sant di gërëm samay waajur. alhamdulilah éducation ni koy joxee mooy du ay dóor ay saaga. Mm-hmm. ma sama nan la ñuy jàngale jox waajur. daf ci doon yónni ñuy ñuy supposons ñu dem banque ñu dem fenn pour jox waajur mu ñu wan ne lii c'est man sama yaay duñu saaga duñu dóor. Mm-hmm. dañu jàngal modestie nit ki loo am am soo modestie dans la vie ndax nit kenn ëppalul kenn. Mm-hmm. man nee naa Viviane dama lay porter plainte lu tax waaye bu mu woowee à chaque fois que su ma ko dégloo damay mm-hmm. ma yàlla kenn doo yàlla que am ñu ko dul ñaan ma naan njëkk a dee sama yaay. parce que man j'imagine ma ma vie ma mère. loolu pour man c'est inimaginable. pareil pour na jigéen ñu yar seen doom. parce que doom nawle la. dëgg la. xam nga àdduna dafa gudd tànk. Mm. am nañu xool ni ñuy sëyee suñu sëy. Mm. defar ba mu baax. Mm. ma góor góor kese la. su bon bu doom bone ni naan ko jigéen ki moo bon. pas góor ki nee naa jigéen buntu kër la. su dëngee euh, mooy loolu. su jubee mm-hmm. nañu daal góorgóorlu suñu doom yi. doom naw la la ku def lu baax am lu baax. nee naa mënoo ji banaan am màngo c'est impossible. nañu góorgóorlu certes waajur kenn di ko. kenn du amuñu pour wax moo def lii wala fuye ci paasam. Mm. loolu suñu yoon nekku mm-hmm. ku ne am nga lu la doy. Mm. instant li nga war def instant nga gis euh, ñaar ñu ànd kenn ki moom la ñuy tudd lu mu tax. Mm. parce que ndeyam a liggéey. Mm-hmm. ndey moo mm-hmm. nañ daal wërsëg ndey barke bàyyi. boo gisee ñu naan bàyyi rek ñu mooy bàyyi ree. ndeysaan te kontaan ci yow. dëgg la boo amee wërsëg bu ñu naan ah li lu ko lu ko def ndey moo liggéey kër bàyyam nañu góorgóorlu. ci suñu sëy a suñu biir kër yi. ndeysaan te yar suñu doom yi macha allah. jërëjëf yàlla bu leen kat <laughs> na yàlla fayal ñu la. Ah, ci barke Seydina Mohamed ah. sallallahu alayhi man nag man nag naaw naaw naa kii man. libaas dëgg la lool lool lool lu hmm. coow li bari bari wax yëpp. Hmm. nañ delluwaat ci fondement bi. Hmm. fondement bi muy jigéen juy sëy. soxna déggan. lu baax du jur lu bon. lu baax du tampoog lu bon. man ngaa bon waaye islam fi la koy baax. Mm. boo dee sëy si. Mm. amal nooy sëyee. Mm. ndax ëllëg. ngir ëllëg bu sa doom màggee. dëgg la. doomu jaamur laay bañ a dégg. koo dégg ñu ne doomu jaamur la tikkiwul. waaye bu doom baaxee ñëpp juru ko. ndeysaan ndeysaan soxna dégg dëgg la wax nga lu am solo. dama ne doomu jaamur mënu ma koo dégg. dëgg la daa tikkiwul. waaye bu tikkee ñëpp juru ko. ndeysaan libaas jërëjëf ci ligne bi libaas. <laughs> salaam. Bass ñoo ngi siyaare jawaay ñu ngi siyaare bu baax kooku. Talla Talla Fall Nantes dëkk bu ñuy wax Nantes France. Nantes Nantes Talla nant Nantes waaw maa ngi siyaare na jaay njaay loolu laaj ak soxna Déggal. ndeysaan jërëjëf Fall ñu ngi leen bu baax. ñu bu baax. ah man de soxna si li ma bëggoon barkeloo tey rek mooy. Hmm. man daal jàpp naa ne. Hmm. faaw ñu dellu yaraat ñu ñu yaru kii de. Hmm. gis nga nit ki. boo ko jàngalul ak yàlla. du xam sa àq. dëgg la. gis nga tamit te leer na ma ne képp koo xam ne gone bu ciy sàggane say waajur. Hmm. doo gudd fan doo lu baax. damaa bëggoon a nettali benn histoire bu ndaw rek dana gàtt incha allah. bisimila bisimila. gis nga suñu maam Ibrahima yonent la. ndeysaan. moo jur Isaaxa yonent la. Hmm. Isaaxa jur Suwaybu yonent la. Hmm. Yuus Yuus Suwaybu jur Yuusufa Yuusufa yonent la ci Yuusufa amul doomu yonent lu ko waral. li ko waral mooy Yuusufa ba mu recevoir papaam ca palais ba nekk euh, ministre des finances. malgré que teral na papaam yëkkati ko. Mm. indi ko comme sa fauteuil boobu mu teg ko ci wesam. Mm. la mel na benn picc naaw lañ sànq lañ bu yooyu baaraamu sànq ba génn. Mm. suñu borom daal koy xamal ne. bokk gi mu bokk ak sees bi papaam doo nga tax mun ta am doomu yonent mm-hmm. dégg nga gannaaw nag yonent moom doomu moo mën a teral la noonu papaam teewul yàlla xeeb teral googu ba mun ta am doomu yonent Ousmane ñun ñu tekkiwul dara nii ku ci toroxal sa waajur wallaahi doo gudd fan mm-hmm. doo am lu baax wallaahi wallaahi ndeysaan jàngal nit ñi mm. sëñ Abdou Couture bu baax ma am na lu mu waxoon nee na woon nit ñi nin ragalee ñàkk mm. bu ñu ragalee woon yàlla mm. daanu am yàlla ci du ñàkk dëgg la <laughs> jërëjëf dëgg la indi nga lu am solo Fall kontaan nañu ñu ngi nuyu Nant bu baax a baax gis nga Alaaji mm-hmm. kër yi liñ ciy wax ak liñ ci war a defaraat bëri na mm-hmm. soxna si li mu wax bëri na ay euh, parents yoo xamante ne mm-hmm. seeni mer seeni meroo dañ koy seddaloo xale yi xam nga nee naa ci ci aji ku góor ak aji ku jigéen. ndax ñun ñii jigéen. Mhm. suñu meree góor rek laa la wax daanaka sax xëy mën naa ñu ci néeg bi wala divorcé nañu. Mhm. waaye doom ji la koy nettali di ko mm-hmm. sedda sa baay bu bon bi mm-hmm. daf maa jox dépense mm-hmm. wér jigéen ni suba ak ngoon kii ni ma ko bañee xaw ma la xale bi xale xale bi di di di calculer bañ googu nga koy inculquer ci bàyyi bi ak wax yu ñaaw xale bi dafa xëy suba een papa ji di ko ko manifester ba keroog ba mu koy wax wala keroog ba mu koy dóor su dee doom bëggoo nga koy naan gis nga sa baay de naqar rek démb ci guddi daf maa dóor ba ma tëdd waaw waaw métit gi ma métit xoola doom bu góor boo xamante ne yaa ngi dëkk di ko wax ne baay bi dafa lay métital mais kooku mu ngi rêve rek toog am doole ba yenu baay bi ci kaw teg ci suuf jëla ko ci ligne bi libaas allo allo allo waaw Pape Ndiaye Ndiaye maa ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay bu baax. maa ngi kontaan yàgg naa seetaan émission bi chaque jour damay bëgg dugg ay presque def na un an tey chaque jour su ma jot ma seetaan ko. saa ma seetaan ko. est-ce que fooy wootee. maa ngi wootee Gabon. est kon yàlla dogal na ko tey. yow moom Papa yow moom Papa bëgg yàgg yàgg naa bëgg wax ak yow vraiment. na ko tey de. parce que ñu mel ni yow vraiment soxla leen trop bi. ndeysaan bu demee ba ngeen dugg ci affaire affaire yaraat bu mm-hmm. ma ko déggee dama si kontaan trop. jërëjëf. parce que damay sant yàlla di sant si nga xamante ne fa laa jógee quoi si mag ñi nga xamante ne fa laa jógee. parce que bàyyi naa fa yar yar bu bëri laa fa indaale moom laa fi jógaale moom laa fi indaale. est-ce que barkalla. tax tey boo xale laa sax mais bépp mag boo xamante ne jàkkaarloo yow ma jox ma cër ndax bi nga xamante ne moom laa fa jëlee. kon yar rek moom solo képp koo xamante ni xale la tey dëgg la waajur sonn nañ képp ku fi nekk nga xam doom gone yaa war a jóg taxaw mën a jàppale say waajur pour suñu sigi fu ñu taxaw mën a sigi parce que nga am sa doom yar ko ba mu màgg yaakaar naa ne doom dañ ko yar ko mais am na fooy toll yow yaay taxaw mën a dimbal say waajur aussi ñi nga xamante ne ñoo ko doon gis yow ñu ngi doon seen soo ñu gis ko ci yow man ki ma yar mag la mais dafa dem ba benn instant alpulaar la quoi dañoo dem ba benn sax dañ ko utal benn tur boo xamante ni dadd lañ koy woowee dadde. oui. dadde dadde si pulaar mucc la parce que dafa doon mag boo xamante ne dafa am ay njabootam dem ba am ay sëtam ñëpp jaar si yoon bu baax boo xamante ne mosuñu si gis benn jafe-jafe ñu tuddee ko dadde. macha dadde mooy mucc loolu nag yombul tey si yenn mag yi waa. macha allah macha allah. moo tax bu ñu bu ñu gisee ku mel ne Ndiaye Lo Ndiaye vraiment ñoo ngi ñaan yàlla mu gudd fan. amiin macha allah macha allah min yaa gis loolu parce que moom mu yokk lu bari macha allah min. bëgguma sori nag vraiment kontaan ci émission bi rek ak kontaan ci yow. jërëjëf jërëjëf maa ngi lay bëgg jërëjëf. yow moom su ma xamoon nu may defoo jokkoo yow dinaa ko def vraiment. jële na la laas na jox sama numéro bul coupé. nee na laa seen a jox jërëjëf yal na yàlla defal jàmm ca Gabon ak ñi fa ne ñëpp libaas kon xam nga paquet boobu laa bëgg tuuti ñu wax ci <coughs> ci li ngay waxe wéyjur bu dul dëxëñ ak wéyjur wu ñaaw làmmiñ ndax su fekkente ne ne que yow aji ku góor ki aji bàyyi bu dul dëxëñ baay waaw baay bu dul dëxiñ ak ndey bu dul dëxiñ ko waxuma wayjoo ndax da nga ne wayjoo day waajal doomam kon loolu am na mais contentieux du ñàkk ci couple ak niveau bi mu mën a nekk mën na nekk contentieux bu tuuti comme contentieux bu mag mais xale yi ñu koy seedeel di leen arbitrer mm. am na ay xale yoo xam ne juddooguñu dañoo bejjaaw ndax mm. arbitrer papa ak yaay soo toogee papa ji mu wala léeg-léeg dugal la ci oto wala dugal la ci néegu sa ndey ju bon ci gis nga ko de commencé talala talala mais xoolal yow yàq nga yiwu sa doom yépp te xamuloo ko yaay ji tamit su toogee cam sa baay bu bon bi xool ko nangam ak nangam mais yaa ngi yàq viw donc xale yooyu dinañ la eenal yow mi pàppa ji eenal la yow mi yaay ji ba ëllëg si bi ni ñu ko manifester rek baax na loolu aussi allah ji il faut ñu wax ci libaas dëgg la dëgg la dëgg la fu am solo nga doon wax mm. mooy li ñu li doon wax léegi rek mm. xam nga euh, néeg sëy sutura tam def si baax mm-hmm. maanaam tey amul ñi nga dëkkal moom mm. mënoo ñi Euh, coow mënu si ñàkk. Mhm. mais tey di nga nekk ak sa soxna. Mhm. ngeen xuloo xëy suba. Mhm. ànd liggéeyi. wàccaat lijjantiwaale ko. ba mu sotti. te kenn du yëg. maanaam loolu dafa bokk si. sutura si sutura. dëgg maanaam say doom sax tey boo toogee sax wala nga xëy. waruñu xam sax sa kanam njagas na. Ah. ndax tey ku si ne bëggul sa yaay. am problème mhm. buggul sa papa am problème mhm. te booy tomp di leen wax sa mhm. yaay lii la def sa papa lii la def maanaam bañeel bi dugg seen xol foofu du mën a ànd ak respect parce que tout le temps yaa ngi inculqué si moom en boo xam yaa ngi koy dugal te loolu maanaam baaxul tamit si njaboot te tey ku ne maanaam li nga leble ngay fay tey képp koo xam ni yaa ngi yaa ngi toroxal sa waajur xaaral suba ni say doom di leen la toroxal ndax tey suñu borom gëmul nelawul tey maanaam li nga mënoo seme euh, gerte am or. dëgg la kon donc maanaam lépp loo lebal say waajur hmm. rek. xaaral ni hmm. say doom dinañ la ko fay. dëgg la kon donc na nekk lu baax. dëgg la te ku bëgg na say doom yëkkati la. dëgg say doom teral la. dëgg la boo ko defalul say waajur munoo ko am. waxal allah jëlee ci ligne bi allah jëlee ki ci ligne bi allo. <laughs> maaleykum salaam. na ngeen def Ndiaye la Ndiaye. sant yàlla bu baax. maa ngi wootee Gabon. cey eh, sama gars yi waay naka waa Gabon lu tax waa Gabon fa ñu ngi kontaan ci yéen. jërëjëf. ñu ñu ngi leen di sant nit da koy sant ba pare nga sant yàlla. incha allahu rabi yàlla dina leen man nag xaalpulaar laa waaye xaalpulaar bu xaw eh, eh, wolof. waaw maa ngi bu ñu nee Goléré. ci Gabon. déedéet déedéet ci Fouta. ah Fouta Fouta. Fouta ci waaw. Ah, mm-hmm. maa ngi tudd Abou Bousso maa mm-hmm. ñu leen sant di leen di yàlla na yàlla taxaw. amiin. salaamaaleykum <laughs> gis ngeen diggante mu ñu fa ndax dee na waxtu jot na. Mm-hmm. diggante doom du arbitre baay ak ndey. Mhm. arbitre stade lam dëgg la waaye du diggante ñaari waajur dëgg la li ngeen di arbitre bi nag mhm. ci ñoom ñaar lay doon dëgg laa laaj mhm. ci biir ndab li ngeen di sëq di lekk léeg bàyyi wax ndey loo xam ne li xale yi dañuy wiccax seen loxo ndax suur du baatu tegginu mbaa ndey wax ko bàyyi du baatu tegginu te gën a dëggeen nañ doon yeeroo bañuy labat kanam go woyof tey lewet lool tey kasatu labat suñ dox ndànk labat kenn du mee doo weccet ah te soxla ko <laughs> ah déggoo ma <laughs> doo jël weccet la loo jox ko ne dencal weccet bi rek jëndal boisson attayal ah, weccet bi nañ ko di fàttaliku ah, soxna déggan mm. doom berbité mm. loo bëgg a wax sa digganteeg sa soxna mm. bu doom dee di tëll sax dëxëñ ko moo gën a rafet day indi een day indi ëllëg góom mm. bu dul wér dëgg la doo ko faj dëgg la dëgg la mm. alaaji am na yeneen paquet sax mais dama koy bàyyi ba altine ci kàttan yàlla mm. ndax boobu paquet luy jur een ak xotti war ma mm-hmm. bokk na ci moddu séyaat yi xam nga jigéen nga njaboot ba pare di sëyaat mhm. ci sa comportement mhm. loolu musul defal seen papa ñu lay gis ngay jaaga jaagari mhm. di soli siru naan li sa baay euh, baayu vidle bi di doxantoo short nga def chemise de nuit ba ba six heures xam nga am yenn yoo xam ne xale bi daf lay eenal nañ koy defal góor gi tamit nga sëyaat bi nga sëyaatee taluloo sa njaboot xam nga dafa am ay yoo xam ne xale yaa ngi koy dund soo waxtaan ak ñoom ñu ne dama dem ba een sam papa wala een sama yaay parce que li ñuy li ñu gis moo leen doyul kon waxtu wi dab nañu lancé na l'américain ak laasana la Casamance. kontaan nañ ci moom libaat libaas <laughs> tàggool. <laughs> waaw ñu ngi tàggu ñëpp rek di di di leen gërëm si thème bu am solo bi. Mm. di naan xale yi laay gën a waxal. nañu gën a góor góorgóorlu si yar rek. maanaam tey lépp loo lu la yar mayul dara du la ko may. ngeen respecté waajur yi xam ni tey fépp foo nekk. ñu jox la cër rek. Mm. da ko da ko jox sa waajur. Mm-hmm. te loolu lu am solo la. addina moom fépp foo dem. te nga teral sa waajur yar leen foo mënti demit da ngay siggi dañ lay respecté da ngay am lu baax ñu ngi gërëm ñëpp nuyu sa yaay di ah di di sant maire moom xam nga def ma wax baat bu am solo uh-huh. moom dane ma sama xaritu benn bakkan nga maanaam moo man moom laay dox waaw xam nga loolu dafa jafe man tamit sama xarit la jeex mais tegu si benn bakkan bi waaw waaw benn bakkan nga ma la <laughs> jërëjëf soxna maa ngi gërëm baax libaas ndeysaan euh, Mhm. ñaani waajuroo tax mu mel nii. wallaay macha allah na sax macha allah. Mhm. maa ngi gërëm bu baax a baax a baax. Mhm. barkalla. Euh, sëy xam Kiné Libaas. Euh, Kiné Libaas. ndax moom daa seey waaye seeyiwul. macha allah ko yàlla defal maa ngi gërëm baax Amity Tall sunu doom. ndeysaan ca Zurich. Euh, yàlla defal ko jàmm. di gërëm na nag it tubaarkalla bu baax Serigne Mansour. ndeysaan Niass. dégg di ñaan bésam bi yàlla na yàlla yóbbu. amiin amiin yaa rabbal ndax euh, sëriñ Mamoun ñasa ko jur. ndeysaan waaye bis bi mu fas yéenee def. ndeysaan euh, altine. ñaari téeméeri kaamil. grand théâtre yal na jig réew mi amiin amiin yaa rabbal aalamiin muy boo ñëpp di ay julit gis nga alxuraan dëggan mm. buñ ko di fàtte muy diine te ku nar a fay bor soo waaju dina am lu mu daan bëgg ndee ko defal kon yal na ko yàlla defal jàmm ak màggal ñi ko rek ñëpp ñu lépp ñu ko koy tuddi premier président la république Macky Sall loolu dara yow wax nag baat bu ma gën a saf ci Youssou Ndour mm. yal na ko yàlla fal cat Youssou ñaan gi ko ñaanal gépp ci TFM di gërëm nag tubarkàlla Euh, sama xarit di sama lépp. di ajaratu Awa Guèye mu soxna asfaalu seex Ibrahima sama sëriñ. kooku sama lépp la. rotu guddi la may defal. ajaratu Leena Fall Jaañ maa ngi koy ñaanal. Mm-hmm. yal na yàlla dimbali ko. ba xolam gën a sedd. Euh, Ibrahima Sall. muy mm-hmm. directeur u sama xarit te nu bokk Cheikh Abdoulaye Mbacke. di gërëm nag it nag euh, ki nga xam ne kii ma nga ca Banjul. Mm-hmm. di jeeg caam. jeeg la de moom day du jeegantu. ak nag ki xëy mooy Collé Seck di madame Sakho di ko ñaanal jàmm yaande ñang sa mag di sa xarit maa ngi koy ñaanal bu baax yàlla defal ko jàmm bu baax a baax ak xadi yi nga xam ne mooy xadi Diouf di commerçante nekk ca baan ak Seynabou Wade ki nga xam ne mooy député assemblée nationale di ñaanal Awa Diop ñoom ñëpp mm. ak ñaañi Touré fi may tëjee nag mm.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 618 80 29 ci Scat Urbam 618 80 29 Nadoura merci kon nag jërëjëf Alaaji bi tagal daal Alaaji. waaw may fàttali laay ci laay maxtaar waaw ma doon lu ma kan waaw waaw. nii jërëjëf nii rek. salon dégg ngeen chimère bi moom xam nga leen. waaw kooku moom ku fa dem rek salon. di nuyu sama rakk Sabel Touré <laughs> ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Sabel <laughs> ah, nekk fii ci Almadi kontaan nañu lool.